bokk ko parce que dafa am loo xamante ne nit mënalu ko boppam ku génn fii ku la ëpp doole song la këf sa portable sa première réflexe mooy dem police wala dem gendarmerie mais boo demee police lan moo tax police am parce que état dafa jël recruter ay nit former leen di leen fay équipe leen boo soxla justice da ngay dem ci justice parce que état dafa jël ay nit former leen équipé leen di leen fay saleer mais loolu mënuloo ko sa bopp mënuluma ko sam bopp su ma jógee tey ne damay dem Ndiaganiao ci tëli laay topp mënuma tabaxal sam bopp tëli di ko topp de dakaar à Ndiaganiao kon am na loo xamante ne nañu nangu ne que nguur rek moo ko mën a def mais nguur fan lay jëlee xaalis bi ku ne xam na nu dañuy xëy rek dem dagg ay suñu billet commencé jënd lu ñu soxla demewul noonu kon ku nekk dangay xool ci loo am ñu comp ci tuuti nga duggakol ci gafa gi ñu dem gafa googu nag saytu ko nu mu gën a rafetee pour jëriñ askan wi man bi may nekk inspecteur des impôts et domaines mën ngeen ko dem seeti ji bu ñu commencé di def ay remise gracieuse maanaam di bale impôt ay nit 2016 lañ def suñu conférence de presse ne lii jaaduwul attaqué ministre bi ñu ne ñu dañoo génn obligation de réserve ba menacé ñu pour ñu pour dàqu ñu waaye dañ jàppoon ne dafa baaxoon sénégalais yi xam ne que am na ñu ñuy bàyyal ay impôt waaye am na ñu ñuy ñu ñuy noggatu tamit di leen pressé pression gu métti bu dee dañoo ne par exemple dañoo soxla 7000 milliards ne sénégalais yi koy joxe bu ko 18 millions yi sénégalais yëpp joxe woon ku ne dina oyof ci yow waaye bu ñu bàyyee 18 personnes joxe ko ku nekk day gën a diis ci yow donc il faut que ñu répartir charge fiscale bi ma yàgg jël sama dossier tamit liggéey ci. gis fraude fiscale notifié ko ay nit ne ma bàyyi ko parce que mbokk diw la xaritu diw la wala wala wala ma dem ba yàlla dogal ma téye la ngerew mi ma gis ne que li ñu soxla lépp ay urgence la ci liggéeyu ndaw mi ndaw ñi ci infrastructure ci lu ne ci formation professionnelle ci agriculture ci lépp lépp lépp tout est urgent ma ne mais xaalis bi fan lañ koy jëlee bu fekkee ne tey amatuñu marge pour dem lebi ji parce que avant ñun diggante deux mille dix neuf surtout ak deux mille vingt quatre dañoo leba leba leba leba leb ba am na foo xamante ne mënatuñ ko leb parce que encours bi ñuy fay chaque weer ci bor yooyu dafa dem ba diis ci état bi boo moytul bu ñu continué noonu dootuñ ko attanu si te kon mën na créer problème kon lan moo des xool ci biir réew mi ñiy fay ñu nee leen gàcce ngalaama continuer leen fay ñi fayal ñu ne leen nag kaay leen nag ngeen def ni ñëpp. parce que fii amatul kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu mooy jubbanti jubbanti nag bu nekkoon lu ñuy naan dañuy jàpp ne ndox mu weex tàll la ndox mu weex xatt la parce que neexut li gën a confortable pour quelqu'un koo xamante ne daawul woon fay impôt mooy ñu bàyyi ko bu rek mu bañ a fay impôt que yeggul métit bi mais bu muñ ko buñ ko bàyyilee mu bañ a fay boobu tamit mu ngi ñeneen a ngi ci loru dañoo ne juste ñu dul woon fay gaay leen ngeen fay ñi nga xamante ne dañu leen doon jàppal tànk amatuñu ku leen jàppal tànk parce que ñëpp dañoo war a contribuer kon performance yi nga xamante ne administration fiscale yi ñu ngi koy def dès 2014 la ANSD def un rapport ne les performances administration bi kese kese kese lum mu ñuy côté ci perte de recette 214 milliards la maanaam saa yu ñu defaan réalisation ba at bi jeex bu ñu bu ñu nekkoon à un au max de nos performances. mënoon nañ def deux cent quatorze milliards supplémentaires ñun à l'intérieur xamoon nañu ne ëpp na deux cent milliards di dem par rapport ak li nga xamante ne war nañ ko mën a def beneen bi nag mooy man du man maa inventé impôt de ñun ñi nga xamante ne ñooy suñu ndaw ñu ñuy teewal assemblée nationale ñoo dem assemblée nationale voté code bu ñuy wax code général des impôts chaque année député yooyu voté loi de finance au non du peuple pour wax askan wi président de la république am nga autorisation dem jëli ji xaalis ci askan wi jusqu'à hauteur de temps bu doyul jox nañu la autorisation pour nga dem leb ji kon ñun ñoo consentir ñun ñoo nangu ne que dañuy jël ci suñu alal jox ko réew mi pour ñu mën a liggéey pour mu mën a liggéey loo xamante ne ci njëriñu askan wi la dans cet exercice tout le monde est obligé participer maintenant pression fiscale bi en réalité c'est pas une pression en réalité c'est qu'on a juste fait sauter un véro de blocage bu doon privilégié à certains ba pare di gën a loo ñenn ñi nga xamante ne ñoo doon supporter la pression mais loi boobu wax ne ni sart yi la ñuy fayee impôt